asalaamualeykum maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo amaat yéene dellusi ak yéen ci yóbbulu bés bi lépp loo ñàkk lu dul yàlla rekk mën ngaa am lu ko wecci waaye yàlla moom boo ko xasee ñàkk amatoo dara lu bokkut ak moom nag mën nga koo ñàkk am lu ko wecci lu bokkut ak moom nag mën nga koo ñàkk am lu ko wecci ñoo ngi ko toxalee nag ci téere ñu naan masaalikul naan sëriñ Tuubaa wax ko fa jërëjëfi sëriñ Tuubaa maam Cheikh Ibra